Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum les chers internautes asalaamaaleykum à tout le monde ñu leen di si am bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay ci seen télé boobu di Salam Vision. chaîne bi nga xamante ni nii woote wu loolu jàmm ak ambiance kon jaar nañ leen bu baax a baax ñu ñëw ak yéen ci seen émission gëstu bés bi muy émission bi nga xamante ni nii c'est émission qui vous donne l'actualité au temps kon ñu leen di jaar bu baax a baax tey nag dinañ waxtaanee li nga xamante ni nii mooy li l'inauguration de tonton Youssou Ndour à Diamniadio li nga xamante ni daf ko def pour wàññi somor bi ñu ngi ko ciy remercier waaye tamit bu ñu fa jugee dinañ xooli Sonko face à la justice ndax ko ni nii wéy ji waaw ak li nga xamante ni moo tax xew suba muy combat bi nga xamante ni moo dox ci diggante Papa Sow ak Siteu muy combat boo xamante ni combat bu nar a doy waax di ngeen yéen a am di jëmbeeg xale bi yaayam yaakaar ndoom ci n'a pas peur de voir des cœurs sans plus tarder dañuy dem réseau et on revient sur le plateau comme ça ñu àndandoo faram fàcce. Thank you. on est là sur le plateau ñu ngi leen di bu baax baax comme toujours di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm tey sax ci mim xew ndax jàmm ci la lépp di ñaan jàmm wala nga ba dugg ci biir néegu sëy ci la xat waaye tamit di ñaan di ñaanal kilifa diine yeeg kilifa aada yi yàlla sa borom bàyyi ba ca kanam a waaye ñi nga xamante ni ñoo tëdd yi maa ngi ñaan yàlla leen bañ dellu seen njaboot ak ñi nga xamante ñoo nekk ci kaso yi ñu leen di bu baax a baax di leen ñaanal jàmm tey ñaan jàmm doobu nekk ci partout dans le monde jox naa leen yëpp képp koo xam ne yaa ngi ñuy suivre ci Salam Vision ñu ngi lay ñaanal jàmm yow nga xamante yaa nekk l'international ñu lay ñaanal jàmm di la ñaan lépp loo xam ne bëgg ko yàlla na ko yàlla def parce que yéen tamit suñuy frère ngeen kon ñu ngi leen di jeex bu baax yéen jox seen wàccuwaay comme ni leen ko junjee woon comme ni leen ko junjee woon ndax ku ne xamante ni Youssou Ndour def na acte bu rafet un acte boo ni képp kuy jeune war na koo saluer un acte boo xamante képp koo xamante ni développement moo la ñor war na koo saluer ndaxte kat ñun jamono bi li lañ soxla ñoo xamante ni daf ñuy dañuy jàppale jeunesse bi ñoo xamante ni dañuy yëngu ci wàllum développement parce que tey jii nii bu ñu demee bu ñu demee ba teg leneen pour la pour wàññi chômage bi pour que jeunes am ci lu yëngu loolu noonu fierté la parce que doomi Sénégal moo ko def doomi réew moo ko def muy un musicien boo xamante ni tout le monde l'admire parce que lépp lu mu way téere la te ba tey ñu ci développement. ba tey parce que nga teg lu mel ni société boo xamante ni lu mel ni TFM te ba tey ku xam ne ku nekk xam ne TFM jeunes yaa ngi fa di liggéey ñu ngi bay seen waar mais loolu doyul Sénégal fi mu toll war nañoo jeune war na war na dépassé xëy tëdd di nelaw damay teg neneen en jam ñaari pour jeune bi pour sénégalais yi kon loolu noonu tonton Youssou Ndour ñu ngi la ciy félicité di la di la di di lancer un message pour yéen ñi nga xamante ni nii yéen a nekk yéen a yéen a nekk au maanaam yéen la yéen maanaam yéen la fi yàlla teg jox leen ay moyens di leen wax ngeen gestu jeunesse bi nga xamante ni nii bëgg nañoo liggéey mais amuñ ku leen jàppale di leen wax ngeen gestu jeunesse bi nga xamante ni nii bëgg nañoo teral yaay bëgg nañoo teral bàyyi mais ba tey amuñ ku leen jàppale ngir yàlla créé leen ay société créé leen ay bërëbu liggéeykaay pour jeunesse bi nga xamante ni ñoom ñoom bëgg liggéey parce que instant bi Sénégal foofu la toll réew mi foofu la toll ndax réew buy dox ci société bi lañ koy xamee waaye tamit ci jeunesse bi lañ koy xamee te gi nii boo leen jàppalee jeunesse bi man gëm naa ne lépp dina baax kon benn jeune du xëy di taxawaalu benn jeune du nelaw bu biddanti kon ñu leen di ñaan ngeen def ni tonto Youssou Ndour def di ko ñaanal davantage di ko ñaan projet yi gën a law ba képp kuy jeune gis sa bopp buñ jógee foofu tamit day dem xooli Sonko bi nga xamante ni ku nekk xam na ni wuy ji woon na justice ji woon na wuy ji woon na temps yi passé ku nekk xam ne la fa xel ñun ñëpp ñun ñëpp gis nañ ko Sonko juge bi déglu na ko wax na li mu ciy wax mais on a jiite ne dañ mais pour man parce que ku nekk sa xalaat lay wax ku nekk li nga xam ne moom nga sentir moom lay wax man je me suis toujours dit que fekkoon tey jii li mu mujjee nii bu fekkoon moom la njëkkee kon peut yu bëri du ci am kon tey jii nii jot nañu ñi nga xamante ni nii wala ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoom la ñoom la ñu yaakaar ñu yaakaar réew mi wala ñoom ñoo a jël réew mi ñu xoolaat seen doxalin xoolaat seen tooyaay parce que man je me suis toujours dit que ni xeex ak moom état. kenn mënul xeex ak moom kon jot la jot na tey jii nii képp koo xam ne opposant nga nga xool sa doxin parce que tey jii nii bu ñu ne jeunes yi nga xam ni ñoo ci ñoo ci gaañu woon ci première conférence ci première bi nga xam ne moo fi xewoon ci li fi xewoon jeunes yi nga xam ne ñoo ci jot a jot a gaañu ba tey seen i parents ñu ngi toog di xaar dara amagul autopsie du autopsie du dara ba tey ba tey fan la ba tey dara ba tey naada te loolu noonu. day delloo réew ginnaaw loolu noonu taxul taxul réew dem ci kanam kon tey jii ngir yàlla yéen ñi nga xamante ni yéenay nguur gi xoolal leen seen taxawaay xoolal leen seen seen toogin parce que jot jot na Sénégal Sénégal Sénégal dem en avant jot na tey démocratie bi nga xam ne moom la ñuy woote mu ñëw wuy si ñu jot na tey démocratie am ci Sénégal parce que bu fekkoon képp ko ëpp doole wan ko ko rek du baax kon tey jii nañu xoolaat doxalin bi nañu xoolaat toogin bi parce que l lépp Sénégal ñun ñëpp Sénégal lañ dëkk ñun ñëpp Sénégal lañu am ñun ñëpp Sénégal lañuy tiitaroo kon na rafet yéen ñi nga xamante ni yeneen opposants yi comme je le dis toujours xool nañ loolu xamante ni nii maanaam moo war a jëmal réew mi ci kanam ngeen koy def waaye lépp loo xam ne fitna la wala xeex da ci am wala xuloo ngir yàlla ñu ngi leen koy ñaan ñun jeunesse bi ngeen bàyyi loolu noonu parce que lool noonu taxul réew jëm ca kanam loolu noonu taxul ñu jox leen suñuy kaar parce que tey jeunesse bi moom ñoo war a ñoo war a def face à l'action ñoo war a def fas a suñuy problème ñu xool ci tey jii ki nga xamante ni nii leer nañu kii bi ñu ko joxee suñu carte on va l'avoir dinañ am président bi soxla mu jox ko ko ba pare nañuy toog képp koo xam ne war nañu si xeex wala war nañu si xuloo ngir yàlla buñ ko wuyu nañ toog dem ba xaar toog xaar 2024 parce que soreetul ñu jël ñu xool ki nga xamante ni moo ñu doy ñu fal ko mu nekk suñu président waaye maa ngi ñaan bii yoon dañuy fal koo xamante ni nii pare na pour jàppale ñun jeunesse bi waaye tamit nañ fal koo xamante ni nii démocratie moo ko ñor ak avancement ak développement parce que instant bi foofu lañ loolu lañ soxla soxla wuñ koo xam ne daf ñuy nax soxla wuñ koo xamante ni nii xamul suñuy bëgg-bëgg kon te jii nii na jeunesse bi yëpp yeewu ñu bañ a xuloo bañ xeex xam nga ñuy toog di sottante xalaat xam nga parce que pour man fii nii réer amul ñàkk waxtaan moo am réeroo waxtaan moo di waxtaan seen biir di yegg di sottante xalaat pour man lépp dina ñëw lépp dina baax moo gën xuloo bi moo gën xeex bi def ay entournou def toog toog def ay tee débat loolu yëpp day day day bokk si li nga xamante ni day ñëwal société da koy naatal da koy rafetal que fu ñu toog waxtaan idées yi mën na génn lépp mën na génn kon nañuy toog di waxtaan di sottante ay xalaat moo gën moo gën xiiroo bi moo gën naayoo bi kon lu leen di jaar bu baax a baax di ñaan jàmm te ñaan kat procès yi nga xamante ni moom la sonkoo war a jëm. ngir yàlla na nekk na nekk loo xamante ni nii comme ñi lay mel du am xuloo du am xeex te Sonko il est temps maanaam il nga xoolal temps parce que ñun je suis toujours dit nga ñëwee yoo xamante ni ñun du loolu la ñu bëgg comme que nag da nga pare pour jël réew mi comme que da nga bëgg sa taxawaay xool sa environnement xool ñi la wër parce que lu lu am important la parce que dañ ne fecc mbir bu neexee day yaa jàpp sa mbab ya te ni ñu jàpp say mbagg xoolaat leen nga xoolaat sa taxawaay ak say conseil parce que il est temps il est pour man il est temps ñu saa yu bëri ci suñu doxalin parce que tey nii booy xool man li ma loolu dafa may ci chaque jour li fi xewoon jeunes yi ba tey maanaam ba tey dara ba tey dara te loolu noonu war nañ koo xoolaat kon ñu ngi leen di jaar di la ñaanal jàmm li ñuy tëjee nag bokk na si li nga xamante ni nii moo dox mooy combat bi dox ci diggante Siteu Papa ndax ku boo xamante ni nii. li ci mën a xew bëri na dama koy répété waat combat la boo xamante ni nii li ci mën a xew bëri na ndax diggante parcelle ah, diggante maanaam li ci mën a xew dafa bëri trop sax trop trop trop trop kon s'il vous yi yéen ñi nga xamante ni nii yéen a dëkkee jàmm gën na xam ne kat Sénégal instant bi fi mu toll nii. soxla soxlawuñ xiiroo soxlawuñ naayoo waaye tamit soxlawuñ rayante parce que pour man sport warul féewale dafa war a boole tey jii nii dañ dem ñi nga xam ne ñoom ñooy dem ISRA nañ fa dem toog ci yar ak teggin nañ dem toog ci discipline parce que loolu mooy jëmale réew mi kanam képp koo xam ne daan nañ sa mbër nga xam ne loolu la yàlla dogal sa jëkk yi loolu il faut ñu def suñuy xel. yàlla mooy de mooy xool li koy neex mu koy def kon s'il vous boo demee ISRA war leen indi beneen facette parce que tey jii nii ñu leen ñu si xaaree fenn nga génnee fa loolu pour man gàcce la te ISRA yi waa jàmm gën pour man war nañoo war nañu am beneen mental xam nga parce que laa ci jeex ngeen nekk ci yoon bi si semence pour man loolu noonu Sénégal wax image yooyu war waratuñ koo dund même loolu dañ ko war a dépasser en tant que jeune en tant que koo xam dafa bëgg développement wala ñoo dépassé level boobu noonu nañ dem seex sa neneen nañ liggéey pour man bàyyi yenn yi parce que tey jii nii sport la ñu wax sport la ñu woote ñëpp Sénégal lañ dëkk ñëpp Dakar lañ dëkk kon nay rafet nay nice Siteu bu daanee ñoo xam ne Siteu moo daan Papa Sow bu daanee ñoo xam ne Papa moo daan parce que yàlla mooy décidé waaye nag li ma leen di wax mooy que ni réew muy dox ci jeunesse am nañ koy xamee réew muy dox jeune bi jeunes yi ñoo kon tey jii nii man pour man essence dafa war a naans dafa war a rafet warul am xiiroo warul am naayoo ñu ñëw indi beneen image wane na ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal loolu suñ ko defee pour man après ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk l'état opposition peut-être après dinañ xoolee ci ñun pour il faut ñu wane beneen facette pour man moo gën xiiroo moo gën naayoo moo gën buñ daane sa mbër nga taxaw fii loolu man pour man loolu war nañ ko dépasser. bu jeexee ñu nekk di simol di këf alalu jàmbur yi di dóor nit ñi loolu noonu pour lan daat shit dafa war a jeex ngir yàlla dafa war a jeex suba nag bëgg naa képp koo xam ne yaa nekk isal nga dem ci jàmm nga ñaan fa jàmm boo paree nga xam ne tànn na ñu xam ne yàlla moo dogal loolu waaye tamit nañ respecté norme yi nañ respecté homme de tenue parce que ñoom tamit suñu kaaraange rek la ñu bëgg nañ leen respecté ci biir SA seen gëdd nañ leen jox li ñu moom pour foofu lañ toll foofu la toll nañu xoolaat toogaay yi nañu xoolaat doxalin wi parce que instant bi Sénégal dañuy dañuy soxla ñu changer ay comportement yu bëri lu bëri dañu ko war a changer suñu biir dañu war a rafetal dañu war a dund neex dañu war a dund lu nice ba am beneen image su boobaa man pour man réew mi naan naan. su boobaa kat jeunesse bi dinañ déggoo su boobaa tamit jeunesse bi dinañ suudeewu parce que waxtu jàmm pour man jëmal jëma jëmawul réew kanam def yu bon jëmawul réew kanam au contraire da koy delloo ginnaaw te tey jii suñuy yaay suñuy yaay ñun nañu yaakaar suñuy papa ñun kon tey jii nañ def loo xamante ni nii dañuy dañuy jox dañuy jox un bon image suñuy rakk suñuy frère xam nga ba boo fi jógee ëllëg dangay am dangay am am ay cere yu rafet kon s'il vous plaît nañ wootee jàmm woote ambiance Siteu nga wax ak say supporters nga wax leen kat lii sport la nay rafet nay nice non à violence Papa Sow yow tamit nga wax ak say supporters lii sport la lii lutte la lépp Sénégal la kon nay rafet non à la violence man pour man yéen ñaar ñëpp ku ci ku nekk bu wooyee bu wootee non à la violence après jeunesse dinañ leen dégg jeunesse dinañ leen dégg te dinañ topp seen ginnaaw kon nay gën a rafet nay gën a nice parce que Sénégal Sénégal dañuy tiitaroo Sénégal dañuy bàkkoo kon na gën a rafet na gën a naas c'était ça lii moo nekkoon gëstu bés bi lépp loo xamante ni nag jum nañ ko ñu ngi koy jéglu bu baax parce que nul n'est parfait kenn matul waaye tamit lépp loo xamante ni nii nekk na loo xamante ni nii luy luy luy jàngale la wala luy yéete la nañu xam ne du suñu ci yàlla la parce que yàlla mooy décidé mooy xool di koy neex mu koy def ci jàmm kon sant nañ leen bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm di wax kat yàlla jàmm sax Sénégal suba. dañ ko bëre ci jàmm mu jeex ci jàmm parce que tubaab nee na tout ce qui tout ce qui commence à beauté se termine à beauté kon nañ ñëw ci jàmm ñëw ci ñëw ci lu rafet après ñu ci rafet ñu ñu baat di gë di gërëm tonton Youssou Ndour ci acte bi nga xam ne def na ko te di ko ñaanal xam nga di wax nag Sénégal ñu leen soxla Sénégal dañu soxla koo xamante ni day day day day day yëngu ci développement ci vois di wax sénégalais nag. dañu tàmm benn affaire liñ tàmm mooy que ni liñ tàmm mooy que ñu xaar ba nit dee ñu koy rendre hommage foofu man loolu noonu waratul waratuñ koo dund ku ci mel ni tonton Youssou Ndour ku ci mel ni keneen ak keneen dañuy war a rendre bi ñuy parce que ay monument ay royukaay la développement réew moo leen ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax di ko ñaanal famille koo xam ne soppeeku nga tamit ñaan jàmm wala naan bu dugg ci ko tijjee ba pare sax ci mim que jàmm ci la lépp xaj seen doxalin xoolaat seen toowaay xool xoolaat ni ni ni a dundee ñu ma a defee face à 2024 parce que lu am solo la lu am solo la foofu laa koy tëjee di ñaan jàmm di ñaan jàmm bi sax ci même réew si dee di bi xale bi yaayam yaakaar l'homme qui n'a pas peur de voir des cœurs sur Salam Vision ñu lay demee saa su ne ñu lay demee chaque jour man ngeen ñu xaar parce que chaque jour dinañ def gëstu bis bi chaque jour dinañ leen indi actualité comme ça ñu àndandoo dundandoo gisandoo restez scotchés ci Salam Vision ngeen abonné partagé lii mooy ambiance lii mooy kaf ak ree merci les gars. Bienvenue sur Salam